ndaje moom li ci ëpp solo mooy un conseil bi nga xam ne ci la jëm eh, dama am lu ma jaaxal parce que dafa am lu ma dégg eh, bala ma àgg foofu sax man maay Talla Diagne meeru Thiénaba eh, di meeru APR bon yàlla dogal ñu woote am ndaje ndakaaru ci bureau Augustin waxtaan lu jëm ci wàllu un conseil yi département Kees am trois post benn post bi ñu jox ko Kees commune mu des deux postes ci département bi ñu ne kon benn poste bi AFP lañ koy jox kon benn ko poste moo des bu war a jël dugg ci APR ñu wax ni maire yi ñoo ko moom te ma jàpp ne bu nee maire yi ñoo ko moom ban maire moo ma gën a placé pour un conseil wala ban maire moo ma gën a placé ci poste bu APR di joxe bon tey nag ma am lu ma jaaxal am lu ma naqari euh, ñu téléphoné ma wax ni danoo gis ci journal ñu ne maire taala Diagne président da koo jox poste un conseil mu delloo ko muy lu ma jaaxal ma daal di jàpp ni loolu benn leader moo ko monté xañ na dafa am ku mu ko bëgg a jox wala xañ na da koo bëggal boppam tax mu monte ni maire Talla Diagne nee na poste bi ko président jox delloo na ko kooku amul mais ñi koy dégg yëg leen ni loolu amul mais ki ko wax na xam ne loolu amul mais ki ko bind it na xam ni erreur la bind te it dinaa ko topp ba mu jeex loolu moo tax tey ma dajale presse bi tey yëgal àddina sépp ni leen un conseil bi nga xam ne moom la département kees am muy benn conseil soxla naa ko candidat laa déppose naa sama dossier jaar naa ko fa ma ko war a jaar mais ki bind nag wax ni maire Talla Diagne président da ko jox un conseil mu delloo ko loolu mu wax amul loolu laay leeral àddina sépp ñu dégg ko euh, may xamal nag département Kees lan moo tax ma laaj un conseil parce que département Kees day département bu garaaw waaye xam ngeen ni ci ay référendum la ñu jóge mais bu dul woon ak man ak Mamadou caw kon département kees dañ koy perte ndax lan moo tax dañ koy perte maa ngi moom ñoo dem waxtaan ak sunu collègue di sunu xarit muy Ndiassé Ka meeru Kayar waxtaan ak moom Ndiassé dugg APR andil ñu mille quelques voix loolu moo tax ñu gañe département kees mais bu du woon loolu dañ koy perte amul benn ministre bu nekk département kees wala kenn koo xam ne tax nga président gagné un con euh, euh, gañe référendum bi bii nu passé kon suñu yàlla dimbalee ñu dagaat ci un conseil kon kenn koy jox war nañ koo xam parce que nit ñi fi mu toll dofatunu te it dañu wax ni ginaar du topp koy taxane bàyyi kuy bojj te politicien day am njariñ politicien day dugg rek nit ñi mais politicien day mën a liggéeyal président lu am solo loolu moo tax un conseil bi soxla naa ko candidat la déposé naa sama dossier kon ñi wax ni man bàyyi naa poste bi président moom a ko proposé ba fii ni toll maag président tooguñu ci maag président waxuñu ci kon fan la ñu jëlee ni président damaa jox poste ma delloo ko kooku amul. àddina sépp laay waxal ci presse bi laay wax loola ki ko wax wax na erreur def na lu jaaduwul te tooñ na ma te dinaa ko diggaale moom ak ku ma mën a doom ban journal moo ko bind ak ban responsable nga yaakaar ne moo bon euh, yàllaa ngi dogal bi ma ko yëgee ak léegi mëtatul mëtagul 40 minutes dan ma téléphoné rek. ku nekk Dakar moom itam mu dama xool ci journal bi parce que man xam ngeen ni meeru baykat laa ci àll bi laa yendu maa ngi soog a dugg kees léegi am problème yu ma doon réglé ci lan ma woo téléphone. mais yow Babacar ci laa la woo ni la am na lu ma wax loo xam ne nii vraiment dama ko bëgg a siiwal parce que teguwul ci yoon xaw ma fi mu ne ban journal moo ko bind. mais responsable yi nag ñi am baat ci département Thiès ku ne xam na leen kon jërul sax di cité ay tur ñi fi am baat jàpp ne mën nan maa xañ bi xam nan leen. mais duma ma ko nungu tey du ma ko nungu ëllëg parce que jaaraan nañ fii bi ñuy dem ci élection yi mu metti wan lool ñu wax ni euh, poste Thiénaba muy maire yi dañu koy jox keneen ma féete ak yàlla bàyyi récépissé APR mu dem ma ber sama lestu bopp gagné leen quatre-vingt-quinze pour cent kon du nit du parti mooy gagné nit ki mooy gagné noonu ma melat nag ci élection euh, euh, maire yi noonu laa melaat ci un conseil yi parce que ab département boo ci joxe poste da koy jox koo xam ne wóor na kii déggoon ak département bi mais département bi amu ci benn commune boo xam ne diggaalewu ma ak ñoom ba ma soxlaa ñu wateel président loolu moo tax ma am droit laaj un conseiller mais su ma wóoree ne ma dara ci département bi su ma wóoree ne ma dara sama commune liberté wóoru mooy du ko laaj. monsieur le maire délai suba si minuit bu fekkee président dégguloo wala rectifié wuñu ndax xalaat na Talla Diagne am beneen taxawaay. waaw xam nga Babacar kooku dama yaakaar ni président du ko def. parce que président xam na ba bu baax li may liggéey ci département bi xam naa ko mais lii xew nii du président moo ko wax kon benn benn nit moo ko wax nit kooku ko wax ne xamaguma kan la mais amaan am naa yaakaar du ci jëlee ndam mais li may bañ rek mu jàmp parce que tey la ajjuma suba la samedi dimanche moo ci des mais su ma amul accès àgg ci président kon yaakaar naa ne lin ma lin ma lin ma veel du ma ko mën a wekki fii rek maa ko mën a waxee àddina sépp di ko dégg mais président su ma dee déglu wala mu seetaan ko dina xam ne un conseil bu fekkee ne man lañ ko proposé soxla naa ko buñ ma ko proposé damay xëccoo sun ma ko joxee nag ma xam ne loolu la yàlla dogal sun ma ko joxul ma xam ne loolu la yàlla dogal mais nag leneen mi ci kanam parce que euh, wala fi nee na euh, euh, saaga yàkkamti xuloo la mais jaru ko en tout cas daal li ma war a def def naa ko liggéey naa li ma war a liggéey laaj naa li ma war a laaj maa ngi xaar dogal. Ah, waaw loolu ci sa kanam la te te te nekk benn gu man maa ko dox man euh, bu ma bëggee jàmm ci département Thiès bëgg département Thiès nekk benn mais président laay liggéeyal te suñu amul suñu loolu suñu ko deful woon parce que Babacar bàyyil xel ne bi ñuy dem élection. ñetti maire APR moo am ci département bi mooy man Augustin Tine Mamadou Thiaw mais avant ñuy dikk ci référendum bi maire yi nekkan feneen yëpp xëcc nañ leen maag Mamadou Thiaw ñëw ñëw dugg ci part bi mais loolu dafa am solo kon man ma jàpp ni su loolu amee mais defe naa ne président moom du réere mbir ni ñu ngi koy liggéeyal département Thiès te Mamadou Thiaw moom itam liggéey bu am solo lay liggéey te dégg naa comme nin ma tuumaale nii ni maa delloo poste bi moom itam ñu ngi koy tuumaal ni day jaxase département bi te loolu loolu ki ko wax li mu wax amul Mamadou Thiaw dépa jaxasewul département bi Mamadou Thiaw day liggéeyal président kenn ku ne gis na ni bu ñu ko falee mu nekk directeur du PNDL ba léegi àddina sëpp réew mi fu ne ma fay dem mi ngi liggéeyal président kon suñu taxawee naa day jaxase département ñoom ñooy jaxase département bi ñoom ñoo mënul dara danoo war a bàyyi département bi ñu liggéey ko parce que man maa taxawal ni président département bi boo nu ko joxee dinañ ko en tout cas référendum yi bi mu ñu liggéey suñu xal gagné nañ ko te suñ am incha allah bi suñ demee 2007 di 2017 dañ koy gañe bu ñu demee 2019 dañ koy gañe tant que bu fekkee li ñuy def nii bu wéyul en tout cas bu nu président dee déglu te jox nu suñu cër département Thiès téye nañ ko te déetu ko ñàkk mais nag bu fekkee leneen xew na ci man xamatuma ci dara. ndax bay wéy na mbuus. ah daa déet bay wéyul mbuus parce que président dogalagul bu président dogalee ci la ñuy xam ba xam bay wees wees wéy na mbuus wala déet. tax yow teeloo kilifa da koy vérifier ba pare wala. Ah, ah, xam nga nag euh, journal yi bu nu bindee lii rek laa man a def parce que nag bu fekkee dafa nga koy dégg ci romandaat journal bind ko waxuñu ko ci rajo waxuñu ko génnewuñ ko ci télé mais mën naa am man du ma wax mais ginnaaw génne nañ ko sornaal nag. te man mënumaa daal di gaaw parce que fekk dimanche ya euh, mais li ma man rek mooy lii. damay teggi ba pare alerte nag. waaw parce que nag euh, attention ah. j'ai une question mhm. boo sukkandikoo ci secrétaire exécutif bu démb. Mhm. président artuna mhm. responsable Dakar yi. ak ñi nga xam na ñii aussi dañuy def euh, ci cadre président euh, je cite ces mots. candidature parallèle et sauvage. est-ce que yow yaakaaroon na yow boo déposé ci sa ci dal guy bopp. yaa ngi am tombé ci président ba a di artu waa Dakar. waaw xam nga du ma déposé man duma dem di déposé. man duma ma dem dissoudre sama candidature bopp poste bi benn poste la pare daa moo koy joxe soxla naa ko sun ma ko joxee baax na bu nu ma ko joxul ma xam ne loolu la yàlla dogal mais en tout cas ku ma ko gën a amu fi. te déposé naa soxla naa ko daaj naa ko déposé naa. Uh-huh. te it du ma bàyyi xanaa pare daa xañ ma ko mais su ma ko xañul du ma bàyyi su ma ko xañee rek ma wax ak moom.